original ay waay fii pur jus de fruits original moo leen di wéttali ci seen bépp vingt ans d'existence vingt ans de carrière vingt ans de succès waaye nag mbokk yi ci biir vingt ans yooyu Assane Ndiaye daf ci ànd ak xaritam doomu ndeyam Abdou Aziz Alé Ndiaye bii nag moo war a nekk troisième édition sargal Aziz Ndiaye l'homme d'affaires borom jado Assane Ndiaye ni damay andi la crème de la lutte sénégalaise xale yi nga xam ne ñoo dàkk bëre dàkk mobiliser dàkk ambiance ci lamb ji déglul ma grand combat bi mbay guy gi doomi bawol la jël daal di koy boole ak xale bi nga xamante ne nii mooy ngémboo yaraax di Moussa Ndoye alpha numéro 2 dina fa jàkkaarloo Fatou Bambilor drapeau Ngagne Diouf maire de Bambilor dafa leer numéro 2 daanaan bi champion bi moo war a jàkkaarloo ak doomu Jolof xale bi mën a bëre lool Modou Anta numéro 2 doomu Thiès war a jàkkaarloo ak Sayara Kewel numéro 2 dina fa jàkkaarloo ak Boy Niang numéro 2 drapeau Naar Ñaan borom Sandaga yeneen combat yi ca gannaaw nag moo gën a neex moo gën a doy waar ndax Assane ay ndaanaan rek la boole Assane Ndiaye ak waa Bawol production nag dese lu ñu dara amateur Assane ni sponsor yi may àndal ci bés bi bokk na ci boisson original Daaru Rahman huile Jador distingo Tibet mbokk yi rendez-vous baa ngi noonu le 10 novembre ci arène nationale ñu ànd ci ak Bawol production n'est-ce pas du min ngeen Assane Ndiaye kenn du leen wax jëf mbokki bàyyi xel seen chaîne bi di Bawal TV Naar fal mu leen nuy damaan mbégte bu baax a baax ak contentement di jàkkaarloo waatee géen mbokki ñu nii ñëpp di siyaar ñëpp di nuyu kilifa diine yi di ñaanal ñi faatu yàlla yërëm leen xaare leen aljana ñi tawat yàlla yàlla fëgg seen bopp ñi ci ab féete ginnaaw yàlla seen borom génne ba ñu jël saa suñu biir mbokk leen koy defal comme ñu leen koy defalee saa su waaye tey ñu ngi fii ci euh, Touba Seras Dalifort kamoo fi woote tey Idy Events le grand promoteur bis boo xamante ni bis bu nar a neex la kan mooy bëri grand combat bi ñu ne Demba Balde kan mooy Demba Balde mooy ko nekk Pikine gi sëtu Fallaye bi nee naa la buñ ko tuddee xel yi dem ci Sil Balde waaye buñ ko tuddee xel yi dem ci Paate Balde buñ ko tuddee xel yi dem ci Ama Balde buñ ko tuddee xel dem ci Pokola buñ ko tuddee xel yi dem ci Jacob Balde waaye buñ ko tuddee xel yi dem ci Babacar Balde mbokk yi ma war a jàkkaarloog tey fii ki nga xamante ne mooy mbaxal mi kan mooy mbaxal mi mooy gonek Dalifor gi gonek Touba seeraas gi gonek fi nga xamante ni mbokk yi nee naa leen saa bu jugee dëkk bi ñëpp a koy topp waaye tey Demba fekk si dëkkam fas yéenee bëreeg moom. waaye Bécaye yaakaar naa ni mbapat bi tey foo sànni mbatu mu takk rang baa nga ci biti mel ni tulleeg maa waaye tey la tey ñu ak yéen ak Baol TV maa ànd ko ak Bécaye Bécaye ñu dox xool xale yi. nan la ñuy waajee ak tey nan la ñëwee aja Bécaye ñu dem fàttali ma maaraab yi maaraab lu muy yu ndaw yi ñii li ñuy xam day bari waaye mbër maa nga noonu toog ci sées ba mu indi ko yow kan. maay Aliou Badou Junior. Aliou Badou Aliou Badou Junior. waaw ziar naa la delloo ziar xam nga ki nga tuddee sa bopp xam naa ki ma tuddee sama bopp bu baax sama mbër la sama mag la sama nijaay sama lépp la bu nekkoon igri Ndakaaru la wala du moom non non Aliou Badou dama koy ñaan yàlla ko yàlla xaare aajana dem si yàlla mu ko mënoon bëree noonu mais dama koy ñaanal yàlla yàlla ko yàlla xaaree aajana uh-huh. moom laay rendre hommage nii te damay dem incha allah ba donn ko waaw journée bee ñu génn da nga fee daan jël bu rëy mais tey adversaire bi nga am ak adversaire boobu. ah lu yàlla dogal rek lek adversaire bi ma am moom gis naa ko bu baax. te tey ba ñu ma dara defe du ma ko yóbbuwaat sama koñ. doo yóbbu defet du ma yóbbuwaat maa ngi doore bébé bébé laa dajal. bébé soq bébé soq laa am. te doo dégg du ma yóbbu defet sama koñ. doo yóbbu defet bilaa wala du ma yóbbu defet sama koñ. rendez-vous léegi léegi. incha allah. mu ngi noonu. maanaam noo mën waaw ci loolu nekk mbaa da jam jàmm bu baax. mbaa da ngeen maanaam bu neexee yàlla. maanaam incha allah maanaam defet a ngi nii. maanaam defet a ngi nii. defet kii bu neexee yàlla ñu koy daan kii defet la baale bu neexee yàlla. foo teg loolu. maanaam bu neexee suñu dama koo gis nii. maanaam bu neexee yàlla mi ngi nii may gis. bu neexee xaadim ci xaadim mi ngi nii. bu neexee yàlla dañ koy daan. kon làmb ji en différé la. jeex na tàkk bu neexee yàlla jeex na tàkk allah maanaam jeex a ñëw pour mottali. naa ko ci yàlla jeex na tàkk ji maa la ko wax jeex na tàkk bu neexee yàlla maanaam bu neexee yàlla barki saa baay dañ koy daan barki sama gañu baay jeex na tàkk wër na yàlla jeex na. xam-xam gi foo ko doonoo. barki sama waajuru góor waajuru góor maanaam lii luñ doon la. li ñu doon la mais waat naa ko victoire ngi may gis kee buy dem defet la yóbbaale bu neexe lamb jeex na ba nop mi ni nii billaahi mi ngi ah. billaahi waat naa ko ci yàlla lamb ji jeex na ba pare ah. lamb ji jeex na lamb ji jeex war day am bu ne bu soobee yàlla boo bu lamb ji jeexee dil si leen ci man bu neex sëñ Bamba acca bisimilah mi am na solo ma nga noonu yow tooñ nga de. ma nii laa ma yaay kan. may Baba Jaxal. Baba Jaxal wëndëng. waaw. koy dajal. lëg daaru. lëg daaru. ah. lëg la de. la ma lëg daaru yow. na nekk gaynde daaru. la looy waaj loo ko indil. tey rek moom su ma itul naa ko buddi ba ci kaw su ma demul yàqu bun mi na sant yàlla. astafurlaa booy na rafet. ah. ki la laay rafetal tey ko daan ndànk rek. kii daa daa waane xool ko lu muy doxee moom boobu guddi am na solo rendez-vous ci kanam. am na combat dëgg nag. Ah. am na ko ba dëgg. am na solo lii nga tax sa yi yàlla ni. di ay ma la ko jox ku la ko jox. ay mbir la di samay secret. say secret la. waaw waaw kon rendez-vous la koppati yi. ma fi yaa dëgër kër yi. ay mbir la gisoon naa ko ci Modou Lo. ah mooy. fan su këlëb Baba yow. nga ne lan yow. ñoo ko ko am. jàpp rek defeere. yow. billaay ki suñ ko jàppee na xam na dëgg billaay wala. dañ koy rendi ba rocc put bi. nga ni lan. kii bu ko bi nga jàppee na xam ne lu ko benge ñeengeewu ko te lu ko dëbboo ko mooy ñu lay doomu Ndakaaru ne ragaluñ fuñ jëm dañuy. Dakar ngeen jóge. dañuy bañ ba xëy dee duñ topp si ginnaaw ko yàlla bind. ngeen jóge nii bëre. ok alxuraan. booy bëgg ngeen lam. booy kii bi nga am na solo mu ngi noonu kanam. am na. baxal gi dugg si na de baxal gi ku mu àndal laa ilaaha illallah maxal gi dugg na l'adversaire de Demba Balde maxal maxal gi dañ koy ràcc wala luñ koy def laa ilaaha illallah maxal mee dugg na ca géew ba moom maxal gi maxal gi dugg na ca géew ba ma nga yorab layu l'adversaire de Demba Baldé waaw Mara bi lu muy def nii ñu ngay xëccoo nee ko defal ndànk waaw. baaba baaba baaba baaba. dalal dalal dalal dalal defal ndànk defal ndànk rek waaw defal ndànk dalal. waa kaay yow eh. maxal mee nga noonu xale bi nee na ko père dalal dalal dalal l'adversaire de Demba Baldé nga noonu. wóop pop pop pop pop pop. baxal baa ngi noonu di daw di wër géew ngi yor benn di daw di wër géew bi. baxal naa lay dóor ay coup baxal naa ay coup. boy boy eh yow yaa ko daanoon ba pare di ma nga noonu mais mais Babacar Babacar xam nga moo ma jaaxal kaay njaga doole kaay yow kaay kii laa ilaha illallah caatu seeraas caatu seeraas ana ndawal gi caat siyaar naa la ana ndawal gi ndawal gi ngi fi ngi ñëw Diop de borom soow mi. Uh-huh. dina yomb. moom moo ne borom soow waaye ñun dañuy naan soow mi. da ngeen koy naan dañ koy gém naan soow mi. ko bàyyil dërëm. mais da nga sa combat passé nga bëri lu rëy. booy maa ngi ñoom du niveau. Ah? maa ngi ñoom du niveau. maa ngi ñoom maa ngi ñoom du niveau. Uh-huh. kon rendez-vous ci kanam. rendez-vous ci kanam. ma nga noonu. jëlal ma sarax si. par rapport ak mbapat bi ñu fi njëkkoon tey gis nañ yokkute ci xale bi Idy waaw noonu la expérience bi day yokku la fois passée première journée la woon foo jaar mu am ay failles mais boo toogee si say failles ngay étudier pour mën a rénover la prochaine fois moo tax ba léegi des na sa mais par rapport ak bee passé changement am na si daal. mais dañoo gis ni ngay taxawoo xale bi ci ay bisam Idy Events. sama doom la. il faut ma taxaw ko xale bu am yar la luñ def si moom lu ne tuuti na parce nii nii nii waroon na fekk ma voyagé mais journée bi moom ma téye Dakar it moom vraiment xale la bu am jom te comme que lii bëgg na ko ñu ñuy nekk ay papam na ci ginnaaw moom petite expérience bu ñu ko lee dañ koy séddaleeg moom rek loolu rek la woon. macha allah mais mais tey bis bi nga xamante ni tëgg na ko ñaari xale yi mboole mbaxal gi ak Demba Balde. waa combat la parce que combat ñaari xale yu am mbooloo la. parce que mbaxal mi bu jógee comme ni ñu koy waxee Dalifoor jóg Touba Seras jóg Yaraax jóg Demba Balde moom bu jógee Pikine kenn du des. Eh, li ma gis mu indi tey ëpp na. te combat la boo xamante ne ay promoteurs yu bëri soxla woon nañ ko. mais yàlla ci moom la ko jaarale mu tëgg ko. Uh-huh. bon ñu ko siy ñaanal. Uh-huh. bés bi doon réussite totale daal. waaw mais sponsors yi nañ ñëw jàpp ci yii yii bokk na ci li nga xamante day lancer produit bi ndax yii ñii. Euh, ñi fi ñëw dafa bari te presse bi dañ koy couvrir sponsor yi nañ ñëw di jàppale euh, jeune promoteur waaw loolu am na solo lu mel noonu toujours il faut ñu mel ni yéen aussi ngeen siy jàpp parce que Idy xale la boo xamante ni mbo woo nga man di ma ko wax woo naa la ah, woo naa la ne la booy bi teg naa ko sa loxo ah. kon boo gisee yu mel noonu ah, man la fois passée avant ma voyage sax wax naa ko. Mhm. ma ne ko da ngay sa papa Naar Fall mu jéem la lijjanti yooyu mais xam nga rek xelu xale. ba muy ñibbi si keroog laa woo mu ne ma da fàtte ma ne ko lii nii nii gàtt na. Mhm. parce que amoo mënoo fi décroché benn sponsor si 48 heures. mais dañuy lancé appel la prochaine fois. Mhm. nañ jàppale am na solo si jeunesse. wol père As Ndaw Ndukumaan borom original ak Cobra. waaw kooku kooku moom kooku suñu mënee recevoir aussi dina ma gënal ma ànd fa booy ñu ànd fa ñu toog waxtaan ak moom mu jéem mu xool nu mu mën a jàppale si sponsoring waaw Jamil Nourou Laye bu ñëwee jàpp waaw Nourou Laye non képp koo xamante daal ETDR e ñëpp andi e bàyyi ñu kenn boo limee da ngay juum mais képp koo xamante mën nañu jàppale booy bi si sponsoring daal na ko def parce que ngi xare pour def dara pour booy yi quoi te jeunesse bi wax dëgg yàlla am na fu mu leen Pikine ñu toog def jotaay. waaw loolu yàggatul loolu seew lay des yow mënu ma laa bañal dara boo ñëwee ñu yaatal incha allah. am na solo. jëlal caméraman koo indi. mbaxal mi laa andi. mbaxal mi billaahi ñun dam rek. dam rek ba ngeen di daje. Demba day xaar. parce que ngay wax ak waa borom sikkim bi. non Père Issa xam nga moom lañ àndal moom moo ñuy dooleel quoi. waaw suñu papa gis nga koy dalal naan ko dalal. li li nekk bi moo diis. moo diis moo diis. est-ce que tiitul. tiitul nii la mel. billaahi dafa xabtalu. ana mbaxal gi mbaxal bi mi ngi nee daaj. kan dem xool ko ñu egg waaw ñu dem. wop mbaxal gee ngoog. hey mbaxal gi. borom seeraas nga noonu. keroog. maa ngi ñëw père. père Issa ngoog. may leen maa ngi mbaxal gi rek. mbaxal gee ngi ni Bécaye keroog Demba Balde da koo fekk seeraas ruube ko waaw ma nga noonu gone yi ci mukaay lañ def de bitéeli xaw ma fu mu jógee waaye sori na mais mais mais attends xanaa sëriñu sëriñu tubaab booy ankay bitéel bi xaatimu français la xanaa sëriñu tubaab waaw waaw loolu mën na ne xaatim yi ay français la booy booy Demba am na problème ah kii dafa baax si man quoi dafa bokk si man. yaa ngi dégg mbaxal. dégg naa yow champion bu mag nga. waaw caat seeraat ma war a bëree wuli wuli waat yaa ngi dégg mu daw combat bi ñaari yoon di ko wax na ko moom yaa ngi dégg kii maa ko indi si làmb ji. mais wuli maa ngi koy yóbbante na ko mu bàyyi làmb ji mooy daw. wuli men borom original. wuli wuli men. am na solo ma nga noonu. Père Issa daa mel na nga tàng de. waaw parce que xamal sax ma tàng xamal sax ma tàng xamal Demba la mais kii kii sama doomu à kii bu doon bëre sama doom sax moom laay fexe mais na xam ne arbitre moo ko bàyyi kii sama doom la doom yi ñun dem bala taxu ñu jóg. Ah, ñu jël mbaxal gi mbaxal gi loo wax. ma leen di siyaar yéen ñëpp di leen daal fekk sa lekk sa yàpp. yéen yéen a ko mu def loolu. ah ni nga ko waxee dem ba ñëw ruube la nga naan ñoo ko ko wax. ruube woowu ah? si kawam daan ko. fi eh, seen Touba. billaahi jiitu ma. billaahi. bal dee ko indi de. su ñëwee fi fekk dëmb dëmm yaa ngi fi. waaw barki Seydina Mohamed. moo ko fi may. Pikine Dakar ko indi de. da ko Pikine Dakar indi. voilà loolu la gën papa ma koy indi papa ma koy indi waaw. jeex na rendez-vous ci kanam kaay. rendez-vous ci kanam. yàlla zigiree ngi nii. la grand champion moo fi bëri woon ak Paate combat bu neex ba. zigiri siyaar naa la. maa lay fay. ci loonee. maa ngi noo gisee bis bi tey. jeex rek. waaw. waaw. la moo tax amoo ci ko ba damay jël damay noppal. da ngay. noppal noppal. ah da jël air. ah da ngay jël air. waaw. Ah. da ah. fi ngay jël seen air yow. waaw. damay xool. Ah, ku yambar rek ma jël ko. ku yambar nga jël ko. ku dëgër nga bàyyi ko.

benn combat benn victoire benn défaite. benn combat. benn défaite. benn combat benn défaite. yàkkal la woon. waaw Pathé. Pathé la daan. premier combat loo xoolee ba Pathé daanoon. gannaaw premier combat la da koy méttee bi nga jógee moo tax nga ne léegi ngay xool ku yambar nga jël ko. waaw. ma nga am victoire waaw dafa jot de. waaw Sigir war na am victoire de. la am victoire. ah. am ni nga am victoire entraînement wala. waaw mais entraînement. léegi tànk yi day daw rek. waaw amul ci tànk yi Ama Baldé Ama. Hmm? Ama moo ko mën na de. Ama moo mën rek rek booy ñaa. muy lëg daaru moo ko mën. waaw lëg daaru ak Baba Jaxal. tax ngay moo dëkk Pikine mais dëkk a tax nga faral nga ngay waxee noonu naan moo ah. am na solo kontaan naa ci yow. koy sigir. dëlëmal yow. vérifié Demba Balde. hey Sadou Fallaye baa nga noonu. ka moo ko indi. Sil Balde. ka moo ko indi. Paate Balde. kan moo ko indi. ñu ne Pokola Demba ñàngal na ma nga tàllal sengoor ba ma ngay dox waaye adversaire ma nga nële mbaxal gi ibbil tuuti ci mukaay yi ñu mën a am Demba nee nañ Demba na jubal Demba Baldé nga noonu am na lu muy wax xale yaa ko dar moom Demba Baldé ma ngay wër adversaire ba ti soow soow soow soow soow ma nga noonu la jaar wàcc na fekk ko ma nga noonu ah, ci eh, la jaar bi la ko ba sànni baaba wàcc na baaba wàcc na bu ngeen gisee baaba dem bangok eh baaba moo def eh. yembul yamal ci sa mbër moo ngeen moo ngeen lu rouge bi xoolal ki yow jëlal eh, bul dóor bul dóor bul dóor eh bul dóor bul dóor bul oh. dóor xale yaa ngay xeex li oh. kaay ay waay waxal lii waay bul dóor waay Demba Baldé yegsi na Gambien waaw waaw waaw naar Demba ñëw na waaw waaw waaw Demba ñëw na ba Sim Bamba nan ngeen ñëwee waaw waaw xam rek comme li ñu doon ñu rek hmm. waaw adversaire nga ne gis nga ko waaw booy bi day xaar tey mbaxal gi maam borom xaar tey tey day xaar tey ban Dembaay ñëw Demba bu bees tax bu bees tax. Ah. déggoo ma bu bees tax pare ci fépp. mais kuy jóg li ngay topp dama gis yéen ngeen taal seen i moto topp Demba. Baba Diakhal moo gën moo gën a ruus bi. dama li békaay bi ci xaw ruus bi ci digg bopp bi. moo a dajeeg nag ngi noonu. ana Pikine Dakar. Pikine daa muy si buntu ba de mais muy ñëw. ana Zil Balde. Zil muy ñëw. ana Paate Balde. ñoom ñëpp ma nga noonu. Demba ngi fecc may ko. may ma gale ñu ama bi. baba koy baba koy tër. des na des na ba léegi ba léegi jël amagul. ba léegi jël amagul arbitre wala. arbitre jël am na Demba. Demba noo ñëwee. arbitre arbitre jël nga ñëwee. loo yëg nga dugg see. ndam la mais tey waa Pikine dañ ah, ah, Demba ah, Jaxal daan na. arbitre nee na on décourage